salaamaaleykum mbokki xarit yi ñu ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tour ak sa sant tey am mbégte lool teew fii si leen bi nag c'est dans le cadre de mes visites de contact yi nga xamante ni bi les reines de la direction de l'AIBD SA maa ngi ko doon entamé fan yi yëpp ngir dem seeti acteurs yi nga xamante ñoo autour de la plateforme aéroportière mais également nos voisins yi nga xamante ni moy commune yi nga xamante ñoo polarisé n'ek autour de la direction de l'AIBD SA loolu nag buñ koy wax dañ ciy jiital site de recasement bi nga xamante ni tey yéen mën ni vous êtes des vrais patriotes

ngir mu mën fi implanter joyau bi nga xamanteni tay moy image du Sénégal partout dans le monde di l'aéroport international Blaise Diagne dañuy jaare fofu nak nuyo nuyo bi dañ ci jiital chef de village bi nga xamanteni mom lañ fekk fi ci gox bi nuyu waale imam yi autorité religieuse yi nga xamanteni ño nek ci gox bi yépp nuyu

Moi, monsieur le maire notre frère et ami Momor 6 vraiment di que jox que ndax wax rek parce que aussi bonne Nous ci gox da dem nuyo japp nañ ni site recasement voisin ay donc motax ma ñëw samay loxo nekkat sen dom mo ñëw and ak yeen ci li nga xamanteni lañ ko réussir ndax tay bu ñuy wax AIBD SA bu ñu ko dénkee doomu Thiès je pense que ni département bi yëpp lañ ko dégg képp ku nekk si gox bi rek xamal nga ni fierté la ngeen war si jàpp ngir ñu mën a réussir mission bi nga xamante ni son excellence le président Macky Sall si kóoluteem moo ñu dénk pour ñu mën a doxal aéroport international Blaise Diagne di wax ni rek ni déglu nañ kàddu yi. ñi nga xamante jël nañ kàddu yépp déggu nañ ko mais nak japp naa ni sas ngeen ma ndax euh, suma ragaloon bon daw naa bu yàgg wante xam ngeen ni ki ko sekkal du ragal ndax dama ñëw di nuyoo rek ñu commencé ma song ak ay doléance mais xam ngeen ni tey kii fi ñëw ñeme moo tax mu ñëw fi mais également bokk ci gox bi moo tax mu ñëw fi ndax nit kat doo daw say mbokk yéen samay mbokk ngeen samay dëkkandoo ngeen

surtout problème ndox bi nga xamanteni ni fi fan yi yëpp ñu koy dégg di ko wax donc AIBD jël na engagement vraiment participer ci facture bi ngeen xamanteni ni am ngeen fofu à hauteur de 5 millions donc lolu après sama équipe euh, Kali qui gère la RSE dina ñëw indil leen montant bobu pour ngeen mëna régler fay sen facture bi ndax ndox bi mëna am ndax li nane l'eau est vitale wax ngeen la réhabilitation mosquée bi école yi y a aussi jox instructions pour que le plus tôt possible nous puissions ko régler ndaxte la ñu waxoon rek mooy accompagnement bi ba son excellence le président Macky Sall jëloon ne nañ ko def site de recasement je pense que avons une responsabilité nous ñu respecter les instructions du chef de l'État parce que ku le président Macky Sall a ni dafa préoccupation social envers les populations donc moo tax ñun ñi dénk ñu continuer di œuvrer li nga xamante ni ay mbébétam mooy ab vision envers les populations du site de recasement donc dans leen seen xel instruction yi jël nañ ko lépp loo xamante ni infrastructure la boo xamante ni na ci projet bi dinañ ko réaliser ci sunu magistère ndax de kat sama engagement mooy l'humain may wax rek day fekk mu mën ko def moo tax avant may ñëw def naa une réunion technique avec mes équipes pour xool préoccupation yi nga xamante ni moom lañ moom ngeen teg stable yi pour bu ñu ñëwee ñu mën a wax ni lii la ñu mën leneen li après di leen ko waxtaane moo tax loolu laa leen di woo si waxtaan bi nga xamante ni war nañ ko def mooy recevoir les équipes techniques recevoir les chefs euh, le chef de village et son équipe recevoir le service de l'éducation recevoir la jeunesse recevoir les femmes comme ni je suis ouvert dama suis pour dama pour régler pour apporter des solutions Le problème est bu si vous avez ko cette table, vous ji waxtaan ko kenn du ko pas euh, donc nous vous tax que nous, ñu euh, vraiment une vieille doléance

ñu si bëri dans nañ nañ ma leen nit site de recasement bi la ñu donc je pense que ni suñu priorité pour euh, jël ay emploi dinañ si jiital site de recasement Lors également dinañ ko yokk mais également on va travailler en parfaite collaboration avec la mairie wax naa ko ñun bëgg nañ ville Depuis, fii ay entreprises yoo xamante ni tey su boobaa ñi bi dem donc vision bonne, son excellence le président Macky Sall am si le ñuy liggéey suba goudé beuk pour que son aéroport bi mën nek pôle économique de développement. et je pense que ni lolu jeunesse bi ñoo ñoo si bénéficier la population euh, du site de recasement mais également de keur Moussé ñoo si bénéficier donc di wax ni rek euh, ñu ngi leen encore di remercier ñëpp ñi nga xamanteni ni ñu fi fi nuyu nak sunu frère Moussa Ciss mi nga xamanteni vraiment teeru nañu teeru bu am solo ñu gis la forte mobilisation bi nga xamante ni famille bi nga xamante ni moom laa di la euh, la famille de la coalition Benno Bokk Yakar bi ñu xamee ni ñëw bien vrai que c'est pas une activité politique mais teeru nañ ma dalal ma wax ni ñoom seen euh, gëm-gëm mooy dañoo bokk dénominateur commun te ànd nañ le choix du président Macky Sall mi nga xamante ni am si man confiance ba jox ma lii monsieur le maire l'a réitéré donc ñu ngi leen remercier encore de kontaan bu baax di wax ni vraiment dinañ ubbi audience yi gën leen a déglu def ay réunion technique pour que plus rapidement ñu mën a euh, régler les problèmes sociaux jërë ngeen jëf